ba léegi déggul ñu dara luñ ci def ci ay action pour wane na ñoom kat am nañ sax volonté wu leeral mbir moomee mooy nit filmé na nit wane ko sans que nit ko yëg ko te amul benn action de justice bu ci tàmbaleegu muy lëndëmal encore suñuy ay xel mais vraiment dinañu xeex quoi xeex bi lu mu laaj dinañ ko def le combat juridique dinañ ko def ndax am nañ pôle d'avocat boo xam ne wóolu nañ leen bokk nañ ci ñu dana a ci Sénégal